Cette nouvelle exigence euh, impliquait un changement de paradigme qui ne pouvait se réaliser que par la formation politique. Ainsi, nous avons pris le temps de concevoir ce projet. Après quatre ans, aujourd'hui, nous voici réunis pour fêter l'excellence avec ces jeunes leaders aujourd'hui oppose la force de l'argument à l'argument de la force. Chers récipiendaires, nous sommes fiers de vous, Djeredjef. Monsieur le ministre de la Jeunesse, de l'Entrepreneuriat et de l'Emploi, Monsieur le Premier ministre, président de l'Union des forces démocratiques de la Guinée, cher frères et amis Silou Dalain Diallo, Excellences, Monsieur l'ambassadeur d'Allemagne au Sénégal, lieber Herr Botschafter Zönke, Simon, Monsieur le chef de bureau Abidjan de la Fondation Friedrich Naumann pour la liberté, représentant de Monsieur le ministre de la Jeunesse de la Côte d'Ivoire, qui devrait être parmi nous pour représenter lui-même le parrain feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, Monsieur le directeur général de la Sonacos qui vient juste de s'excuser, il était là avec nous. Distingués invités, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, grade et qualité, chers invités. Je voudrais avant tout propos Souhaiter la bienvenue et adresser mes salutations les plus fraternelles à tous ceux qui ont répondu à notre invitation, particulièrement les amis, aux amis et partenaires de la Fondation Friedrich Naumann pour la liberté. Permettez-moi également de saluer la présence parmi nous des autorités de la République, des représentants des partis politiques, toute obédience confondue, des acteurs de la société civile, et j'en profite pour saluer le doyen Aliontine qui vient de nous rejoindre. En résumé, tous les segments de la société sont représentés ici aujourd'hui. Votre présence témoigne et traduit l'intérêt que vous, vous attachez au renforcement de la culture démocratique et à la promotion des principes d'état de droit Sénégal et en Afrique. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est une étape importante dans la mise en œuvre de la stratégie globale de la Fondation Friedrich Naumann pour la liberté, notamment en Afrique de l'Ouest. Elle s'inscrit également dans la perpétuation d'une tradition de la Fondation de contribuer à promouvoir le principe de la liberté et de la dignité humaine dans tous les secteurs de la société. À cet effet, elle prend appui sur un pilier essentiel de son action, à savoir l'investissement sur l'homme, sur l'individu. Une source irremplaçable, source irremplaçable et constante d'invention et d'innovation, un réservoir de talents un moteur essentiel du progrès matériel et moral aux fins d'une meilleure organisation de la société et d'un développement économique harmonieux. Euh, maa ngi tudd Gaël Babacar mbay bokk ci kuréelu société civile euh, yu bëri yi nga xamante ni ñu ngi fii ci Sénégal ma bokkoon ci ñi nga xamante ni euh, fondation bi ñu tuddee fondation Nouman taboon nañu ci téeméeri ndaw yi nga xamante ni ñu ngi ci. kujj gi nekk itam ci yenn euh, parti politique yi waaye itam nekk ci euh, mouvement citoyen yi ñu amoon chance tey bokk ci cinq ñi nga xamante ni euh, formé nañ leen ci ci ci ci wàllum démocratie ci wàllum ak ak yelleefu ndaw yeeg jigéen ñi waaye itam ci lépp loo xamante ni méngoo nag li nga xamante ni moom la Sénégal di jànkonteel ci wàllum ci wàllum restriction de l'espace civique ci wàllum intelligence artificielle xarale yu bees yi nan la ñuy def tey ba mën a jàmbaarloog ñoom ci ci ci ci air bi ñu nekk donc looloo waral tey euh, may am mbégte bu mag bokk ci ñi nga xamante ni euh, dinañ jot tey seen parchemin gannaaw ba ñu jeexalee euh, fukk ak juróom-ñetti weer yi nga xamante ni jàngal nañ ñu ci ba pare renforcer itam suñuy capacité sur ces loo xamante ni démocratie bi ñu jàpp ni fan yi dafa xaw a alors Sénégal nekk na réew boo xamante ni euh, fa nga xamante ni fa la réew yo di boole ak fa nga xamante ni euh, réew yi nga xamante ni wër nañ ñu mun nañ ne Sénégal euh, ci wàllum démocratie am na ay jéego yu bëri yoo xamante ni def na ko wante jéego yooyu waruñoo bàyyi noonu rek parce que ay nit dañ ci xeex ngir ñu mën a am démocratie boobu noonu te boobu la démocratie buñ ko buñ ko buñ ko buñ ko saytuwul buñ ko dul seet di ko saytu saa su nekk dina jafe loolu ñu mën a atteindre suñu objectif ci wàllu bu nekk ndaxte démocratie bokk na ci itam lii yoon bokk na ci ci tolloo ak tollale bokk na ci ci lan mooy droits humains ak ak yelleefu doomu aadama yi nan la ñuy def ba réew mu mel ni Sénégal mën cee euh, consolider li nga xamante ni ce sont les acquis démocratiques parce que ñu bëri xeex nañ ci ngir mun ñu mën a am yenn ñi wante ñi nga comme niñ ko xamee rek ñu ngi jëm ci ay élections yoo xamante ni dañuy tabb njiitu réew euh, mu am yu bëri yoo xamante ni mi ngi xew wante defe naa ni bu ñu gën a yaatalee rek li nga xamante ni moom la ñuy tuddee espace fi nga xamante ni fa la activistes yi défenseurs des droits humains yi ñi nga xamante ni ñu ngi xeex ngir ñu sàmm ak ak yelleef yi ñu gën leen mën a may kàddu ñu gën a mën a dégg seen kàddu ci lépp loo xamante ni rek euh, jëm na ci euh, gën a jëmal Sénégal jaajëf Mesdames, Messieurs, chers invités, la présente rencontre confirme l'impact décisif des interventions de fondations politiques allemandes dans le renforcement des principes de l'état de droit et de la culture démocratique à travers une spécificité allemande au nombre de six, elles ont pour mission de contribuer à l'éducation et à la formation politique qui font l'objet d'une véritable politique publique en Allemagne. Il s'agit de sensibiliser, sensibiliser les acteurs politiques et les citoyens sur le principe et les valeurs de démocratie, sur l'importance de la participation politique ainsi que sur l'importance du contrôle citoyen de l'action publique. Chers diplômés, il a été rappelé tout à l'heure que vous étiez plus de 500 candidats. Il y a eu 35 qui ont été sélectionnés. Ça signifie que vous avez une formation de base scolaire et universitaire solide et que vous avez déployé beaucoup d'efforts pour être sélectionné, 35 sur Vraiment, je tiens d'abord à vous féliciter pour avoir franchi cette étape. Parce que ce n'est pas des jeunes talents qui manquent au Sénégal, qui ont euh, des capacités reconnues à l'international. C'est avec euh, une immense fierté une grande joie que je suis devant vous aujourd'hui pour célébrer et partager un moment aussi important dans votre vie et dans celle de tous ceux qui vous ont soutenu dans votre parcours d'abord précédent, vos études scolaires et universitaires, mais ensuite pour avoir accru vos capacités pendant cette année et quelques mois que vous êtes passé à l'Académie euh, de, libérale de formation politique. Permettez-moi de vous féliciter avec ferveur pour la réussite, mais aussi pour avoir porté un nom d'un homme que j'ai eu le privilège de côtoyer, de pratiquer et d'admirer, le Premier ministre Amadou Gompoulibaly. C'est un homme connu et respecté pour ses qualités humaines, pour son engagement politique au service du libéralisme. C'est un compagnon de longue date du président Alassane Ouattara. Il est reconnu et respecté pour sa loyauté et sa constance dans la promotion des valeurs libérales, mais aussi sur le plan humain parce qu'il a fait preuve de beaucoup de loyauté, malgré les difficultés que les responsables du RHDP ont traversées en Côte d'Ivoire. Il était sur tous les fronts. Il a accepté tous les sacrifices. Il a beaucoup subi, mais il est constant. Vous avez une deuxième responsabilité d'être digne de son nom que vous portez aujourd'hui, parce que c'est un nom exemplaire. Et je ne doute pas que là aussi, vous serez à la hauteur du défi et que vous